yow mi gisanteeg aji Sarr. man mhm. état d'esprit la toll ci procès bi nga xamante ne dëmmoon lañ ko. mais aji Sarr mi ngi feel comfortable mi ngi baax mi ngi jongama ñi ngi koy dolli xelam ñi ngi koy yaatal xelam di ko wax mu dëgër barki démb daf ma woo jooy ndax MC MC Niass la dafa bëgg aji yéen xamuleen leen yëf yi. Ah, mais nag kura nag. ku ñu ku ñu wax rek nga ne dafa nopp aji. mais parce que sëb la yéen li ko bënn li ci biir li muy wax aji ak bu dama mu génnee ak moom ba mu njëkkee génn xool leen génnam bu njëkk ak génn bi dafa sol cap sol blouson waaye def jeune aji saar mosul dimbali baayam ku ko laaj loolu yëpp ci taalibeem. parce que dafa proposer aji ngo euh, takk ci biir yëf yi nii aji ne ko dama nekk si projet nga bàyyi ma bul ba ba ba ma pare ci yii ba xam ci lan laa nekk man bugguma sax nekkati ci réew mi ndax li xew ci réew mi yépp ak liñ may yëkk lépp te xale la am na droit mu wax loolu bu doon yow tam doo bëgg a nekk ci réew mi ak li la réew mi di yàq